nataal fanweer ak ñaar ci waxtu wi nga nangoo yéesu ni sa musalkat yow soppi nga yoon yow bàyyi nga yoonu saytaane te yaa ngi dox ci yoonu yàlla waaye saytaane du la bàyyee noonu waaye moom xam na ne bokkatoo ci moom ci yoonam te dina fexe lépp lu lay gàllankoor ci yoon bu bees boobu ngay dem bu la saytaane di fiir mën nga ko wax te nee ko déedéet nga bañ ci lu mu lay dugal saa su nekk seytaane day bëgg nga bañ a déggal yàlla te yow waruloo bàkkaar moo tax déglul li la yàlla di wax ci biibal bi mooy téere bi ëmb kàddu yàlla bépp ci biir leetar bu ñu yónnee waa korent bind nañ ci lii xam ngeen ne ñuy def lu bon ñooñu duñu am wàll ci nguuru yàlla ñuy dund ak xërëm yi ak ni leen neex ñooñu duñu jot dara ci nguuru yàlla ñiy jaamu xërëm ak ñiy njaaloo màndikat yi ak ñi jubadi ñooñu duñu am wàll ci nguuru yàlla yéen dañ leen tege boor ndax yàlla ñu jub ngeen ci kanamu borom bi ci turu yéesu Kirist jaarale ko ci xelum yàlla bu fekkee ci njabootu yàlla nga bokk kon bul di déglu seytaane bul defati mukk lu mu bëgg nga koy def waaye déglul borom bi te di ko topp